salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu fii ci rajo Ñaaxeen ci sit bu bees bi ñu ubbi fas yéene ci waxtaan askan wi waaye fas yéene ci waxtaan ak réew mi rajo Ñaaxeen ma 2006 la la ko indi daana waxtaan ci économie daana waxtaan ci développement ci développement ndax loolu rajo communautaire di jëriñ daana waxtaan ci jegele askan wi fexe ba ñi jigéen daana waxtaan ci njàng mi daana waxtaan it ci càmm gi daana waxtaan ci biir famille bi ak lu ñu leen mën a boolee loolu amoon na émission yooyu yenn yenn def na di animation comme ni ngay def di bigal askan wi bu yoor yooree ak itam nit ku mel ni Fatou ak ñooñu di ñëw ñu ciy def ay waxtaan daanañ waxtaani ci diine ji aman na ci kon rajo ñaaxin daana yëngu ki ñuy wax Siré Dia moo doon directeur bi nekkan secrétaire communautaire bi ah am na opportunité yu mu ko indil ndax li mu ko indil mooy tax na ba dara umpiitu tax na mi ñi soree ñëwoon jege ñi lii may wax léeg-léeg ma noppi nit woo ma ne ma xamu woon ni diw laa bokkal kon jege ña la bokk gindi leen la ko ndax boo waxtaanee ci kër maam Ngone maa jaar ga ak fi ci bokk da xam ne mu demee soo waxtaanee ci Lat Joor keroog bi ñu koy fal ak mag ñi taxawan ba mu falu diggante Demba diggante maam me Sele Ndiaye ca fee nga xam ne moo euh, euh, mooy njàmbur ma ko du diggante mag ñooñu ak ki nga xam ne euh, mooy. Eh, magi magi magi magi ñendul yi taxaw sampan ko taxaw ba samp ko loolu te xam ne ñu xam nan la ñuy defee bu ñu waxee ci ñi mu xeexalan ak ki mu jëkk xeexal ku mel ne maa jëjëf dégg ko du muy jëkk xeexal dañu xeex ce cokoor te booba fekk na mu ngi ci néegu néegu góor loolu di ndam lu rëy yooyu dana tax nit ñi xam seen bop dana tax ñu moytu lu bari ndax bu ñu waxee loolu ku bokk ci Lat Joor dina am loo moyu ki bok ci keur Samba bi di nga am lo moy ki bok ci di nga am lo moy ndax xarab gile ne liko indi ak ngor ga ci am ba musu suburi dangeen ko des gile ak ñaari doomi lolo ya lolo liko ni indi ngor kon bu boba ku dekk ngaraat di nga xam sa bop da nga am lu bari lo moy lo xam war nga ko nangu tayit buñ la buñ la engagé ta nga ànd gor da nga ànd ak sa gor bañ ko yak Cheikh nit yak gorom sëñ Cheikh nag gani Fatma bu ñu masaani di nit diw daa jaay gorom danaa déet amu ko woon gor ku ko doo ko jaay loolu daa wax teg ca as gor day soluta noppi Cheikh as gor day soluta noppi as gor day solo te noppi sëñ Cheikh Bakke gani Fatma yal na ko yàlla doon leer kin fi bàyyi mu wóotu ko di sëñ Bakke Soxna Lo jooju nga xam ne taxaw naa tey xool pale ba ñu xool jumaay ji mu doon jumaay ndëppee da doon jumaay ci suuf doon jumaay ca kaw jigéen ñi dañuy yéeg ca kaw tim góor yi ci góor yi ne ci suuf nga dikk ci bale bi ni mu ko liggéey nga xam ne kii liñ ko jox noosé wu ko waaye boo gisee fa mu tëdd ci tayif nga xam ne kii waajal nañ ko bu yàgg loolu daan ci waxtaan sëñ mat si la niñ njëkk yebal fii ci ñaaxin mu ne fi toogal fi Cheikh Moustapha ak maam Cheikh Anta mi sañ ca bul bu di ko jox ko taawam bu baax bi Cheikh Moustapha Al Karim yéen ci waxtaan si Rasu Caam mi ngi woote bis bu bi te sëñ Mbàkkeentu doomam ju baax ji di ko woote yéen ci waxtaan mag ñu baax ñi di euh, mam Male Sow di kenn ci waa kër sëñ Gaawaan loolu danañ ci ay waxtaan incha allah kon rajo bi andil nani nit ñi rendement leneen li ci des mooy conseil municipal bi bu ñu masaan di waxtaan ni ñu koy defee daw ñu ko def dañ ko daan def direct kon li Moustapha Sy la wax ne damay leeral ndax bu toogee bu ñuy tàmbalee conseil municipal dañu dañ koy def en direct yow mi ñëw mënoo ñëw te doo conseil te bëgg ngaa fekk xam nañuy waxtaane ubbi sa rajo dégg ko bu ñu wotee lu nekk fa mu jëm nga xam ko loolu avantage la njariñ la li ci si wàllu éducation bi da ci waxtaan ni ñu war a xale yi fi ñu war a teg seen tànk ak it programme yi ak ni ko war a defee lépp dañ ciy waxtaan loolu itam andil na ko askan wi gindi ko daal indil na ko askan wi mooy rajo communautaire dama sant yàlla xam nga lu ko sante dama daan wax yàlla nanu am ni ñu njëkk a amee rajo communautaire ci bu goo génnee Thiès ba kër dem daar mussi moo nu fi njëkk am Thiès ngay jóge ba kër dem daar Moussi ñoo fi am ñoo eh, rajo ñaaxee na ci topp nekk la voix du Kayor. dama daan ñaan yàlla na nu jëkk a amaat télévision du Kayor kon comme dem na ba dañ ni ñaax ne ak ñaax NFM tey jii ñun ñaaxin TV yaakaar naa ne eh, bu soobee yàlla TV ñaaxin dina ñëw dina ñëw na xale yi ñi koy xalaat directeur bi de Massamba Ndiaye xalaat kat la jàng na xam na fi mu jëm te boo ko yàkkamtiwul mu jëm ak yow fa baax. te it xalaatkat la kon ni muy xalaatee yal na nu yàlla dimbali ndax boo am rajo am euh, fréquence am li nga xam ne mooy euh, chaîne li ci des mooy nga am rek télévision te loolu ay lijjanti rek la te yàlla mën naa dogal loolu bu soobee yàlla balaa yàgg rek nu am ko ba foo toogati di wax foo ko ubbi ci àddina bi ñu ni ñu ñaaxeen loolu yàlla na ko yàlla def kon ku a ngay wax ñu leen di dañu bëgg nag bu ko defee nag ku bëgg a seetaan waxtaan wi na ñëw abonné ci Ñaaxin TV bu ko defee rek des na ci def waxtaan eh, Cheikh gën koo leeral ba ku bëgg rek di seetaan waxtaan yi foo toll Europe asi ak addina bi yëpp ñëwal def abonnement bu ko defee lu ñu wax nga teg ci sa bët waaye du yàgg léegi sax da nga ubbi sa télévision jàkkaarloog ñaaxi nekk bu soobee yàlla ndax ma sama jaay doxinam foofu la may wax nag ni askan wi yéen a moom rajo bi ñaaxi ne fi ko moom askan wee moom rajo communautaire la askan wee ko moom ma Ibra Jaxate ko fi indi waaye bi mu dem da ko fee bàyyi Moustapha Sylla mi ko fekk lu mu ci doole bi dem da ko fi bàyyi kon loolu yëpp nañ ko xam te bëgg yokk ko ba doon chaîne télévision dañ ko chaîne bi jaar jóge ci Massamba Ndiaye te Moustapha Sylla ne fi nga xam ne ci xalaatam lañ ko fi indee moom mas taxaw liggéey liggéey bu rëy boobu xam nga loolu ak yokkute la kon nañ fexe ba am télévision liy xew suñu dëkk nu koy gis di gis mbay meeg càmm gi ak li ñuy def ak suñu jigéen ci marché baag lu ci ñu am li am ak xew-xew yi xew ci gox bi lépp nu koy mën a wone ñëpp xam li xew ci ñaaxeen yaakaar naa ne na maam maajal ko du waxan ni maam ma jëf sàll ni ko dëkk ba dana wuyu ëllëg baatu pay lay doon lu di jaay boo lëgee fi nga koy indi lo way di woné bo légui fi nga koy indi kon lolu dik na mag ni seen wax dina man na gudd yalla way di ci fanan kon yalla na nu yàlla defal jam mag ni sante ñaaxin dépp di wat di wax ni man day jox na len sama bop la ma waxal rek ñaaxim la am aw parti man ñaaxin sama parti aw parti man man aw parti man xam nga parti bu mu parti ñaaxin rek moy sama parti sama leader moy Serigne ñaaxin ñi nga xam ne mooy Ibba Sall jël rakkam teg fi di Basiru ñoo ñooy samay leader keneen du sama leader te ci loolu lay dox ak yeneen chef de village yi nekk ci biir commune bi ak yeneen kilifa diine yi nekk ci biir commune bi ndax man commune yi ñaaxee lu ma bëgg moom lu ma am moom ak gën yal na ci yàlla def développement noo ngi ne kilifa diine yi yi ñuy déglu tey ñaan ñu gën noo ñaanal rek ba yàlla gën a raxas xel yi kon nag nan tàggatoo foofu rek di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu